ñun dañ ñëwoon siyaar si sax. <laughs> moom moom euh, comme ni mu koy waxee rek Serigne Saliou dafa dogal. <laughs> Euh, mu di ko mu di ko doxal. Mm-hmm. moom sax amaana moo gën a ñogal diggante bi. diggante bi nit la koo xamante ne euh, nit ku ñu bëgg. daanaka ñu safoo saa yi su ma koy suñ may tooñ fa dama soxna ay sall bi kañ koy dal dama naa leen pare moom bokkul ci ñu may defal bees daal ndaxte bëgg gi ak Serigne Sall bi nga xamante ne moo dox sama diggante moom muy muy jëmm bu baax ku ne xam na ne yàggul dara loolu ma fi woon xaw ma dama xawoon te man ay xam nga ay dem yu bëri ak ànd doom bëri léew aw ma ko sax mm, nag laay samay doom laay àndal dëgg la ak samay rak ah. donc euh, tuddee nañ ma fi làmb mm-hmm. moom daanaka moo représenté moom ak man ak ñëpp donc yu ci bëri yoo xamante ne luñ ko defal rek euh, xeeb nañ ko mm-hmm. ndax bi muy bi muy taxaw pour suñu jëmm taxaw pour pour mën naa wax sax ci place Wally mm-hmm. ndax euh, bi muy taxaw ci ci ci ci digg réew mi euh, di bëgg bëggam amaana mosuñoo gis. Mhm. xamu ko. dëgg donc euh, loolu nit ku dëggu rek moo ko mën. Mhm. parce que fii nit ku ne xam ne dañuy. incha allah non grave la tënk naa ko gérer loolu naa ko gérer grave. xeebu kenn kii ba may seetal boobu sax amul nag bu seetee di nga suivre ba def aat na macha allah ma def aat na tey bu may seetal ma wax kañ lay dee ma ne ko bu baax. waaye kontaan naa si yow. ministre bi ministre bi da nga mën baax da ngaa baax da ngaa gën waa passé kenn jooyu. bisu bisu ko comme ni nga def yow sa laay def waa waa waa Passy kenn jooy mais ay da baax la. gën la dimbali doomu aadama ay doomu jàmm ñoo gën a sa doom. da ngay toog ba mu nekk loo xam ne nekk. maa fekkee la président am na ko seede léegi de. da ngay jox ñëpp lekk naan di jàpp doomu aadama yi comme métier nga jàpp ko taal su su su sutura yàlla suturaal. yokk la sax loolu sutura. dama ko fenn nag màgg nga dem. lii ñëw mooy daal soxla dina ñëw si dina ñëw lépp dina ñëw yàlla si jàmm yàgg si barke si naam yàlla si yàlla si jàmm bisu mën a ñëw ñëw waxtaan naa bisu mën a tam macha allah bu ñu ko woowee sànq dama maa ngi nekk soxna man ko man maa ngi fi ñëw dëkk bi dafa taw damaa taas ay foofu laa damaa ay postal bu ma laal nga yàlla sa yàlla yàlla sa yàlla ay bin boy gos pakay sesu na fa dor gos ah leer rek am na ngay sama ma leer man damay rek bokk ngay rek Mbaye ci doomu Tafa Mbaye moo tax man mii soxna ay dal man naa xam nga laa koy ñaanal bis. comme que tëtëg bi dégg nga xam nga laa koy ñaanal bis mu ne. xam nga xam nga laa koy ñaanal. ma ñaanal ko fii nga ma ñaan gudd fan dégg yaram yàlla may ko sax sutura ak nature àllaaxira soxna Aida li nga bëgg yàlla ko yàlla defal. amiin yàlla bëgg Sëriñ Saliou Mbacke. bëgg Dérét Baye Mbène. bëgg Soxna Diarra mi nga xam ne moom la ñu yaay Sëriñ Touba. soxna su seen si. macha allah allahumma barik. sama catu morom sama catu keneen. na ca dafa gaaw. soxna Aida yal na yàlla suturaat si ba gis. amiin amiin na yàlla suturaat si ba gis. amiin baax nga gën nga yaatu nga. waaw tamit dinaa ko ñaanal si yow benn dugub moom du ma sama dugub kenn du la waaw waaw di sekk def lu baax macha waaw ah, waaw. kooku mooy kese ma sawee kooku kéwee. kooku yaayam. Euh, euh, coono baayam mbokk yaay bi su góore macha si naam mu nag. Mhm. lu sori laay. li magam dafa rëy waa li mu dafa rëy li waa li dafa rëy góor na yàlla day jooy li waal defaree day jooy la defal defal waali waali moom la ko defal ndeysaan Ouzin Keita gëlëm de waaw waaw cëy yaay waali balaa ko sek soxna Adamu soxna Adamu Serigne mu ngi noonu de tey cëy ñu ngi tër gëlëm ñu ngi tar gileem yi. gileem gileem gaa ngi cëy bëgg mel ni mosu fee. parce que ñu ngi tar gileem yi de. Moustapha maa ngi soog bis passé ak ma nekk dafa am tuub maa ngi soog bis passé gileem ay waay ñu ay gileem bi gileem gileem mi ngi door a ñëw parce que waaye lépp mariage la lu mu laal mu lu mu laal moo dul lu mu laal tey waali wala ko fekk mais ay def Saliou musul am nen ñu yàq gileem gileem yi kenn kenn léewu ko ñu ngi nii di leen de na di kenn léewu ko waaw loolu ko wax am na solo de Lamine waaw Lamine nga li gileem yi dama ni Lamine nga li nee na kenn yëngu ko. gëléem yi kenn luyewu leen. noonu kay rey. ñu ngi nii di rey gëléem. waaw ñu ngi leen ko rey. ñu ngi di ko fàtte. Ah, ñu ngi fàtte gëléem gi. kon léewuñ ko. Ousseyn mooy tur gëléem gi. gëléem bi kat ñu ngi nii di ko fàtte. noonu kay fàtte gëléem bi. nee na nga jël moo tax man mii soxna ay dara. si bu njëkk boo daan génn da nga daan jël ñaari njëgënaay muur ko sa maam bu fëggee ci néeg bi gis nga nga la njëgënaay mu ne Ouzin demul fenn na te boobu dem nga ànd ak mbay mi. waaw eh, dama daan jël bopp bopp kii laa jël euh, sa sa kii. Euh, sama kee sama kee laa jël muur ko def si njëgënaay man de maa dëgg. tey du ma xaw dama woy. tey dafay xewle. seen naa Mouhamed. jënd mi néeg moo gën ñëpp kenn gënu ko. wax ci dara nag man Ouzin Keita. waaw ah weer. nan laa xam ne si musique bu baax tey damay tey damay wax lu baax. daa sa saram kenn du moom. soxna Xadisa soxna Xadijatu. bu wax bu wax damaa mën wax gën a wóoru. sama wax dama wax gën a wóoru. man laa koy ñaanal bis. comme que kër bi déglu xam nga laa koy ñaanal bis mu ne. xam nga xam nga laa koy ñaanal. ma ñaanal ko ma ñaan gudd fan dégg yaram yàlla may ko sakk surtout àdduna su àllaaxira soxna Aida li yàlla jaar na ko amiin bëgg Serigne Saliou Mbacké bëgg deret bàyyi mbeen bëgg soxna xam ne moom dibee yaay seen Touba soxna su seen si masàllaa allahuma baari sama catu morom sama catu keneen na ca dafa gaaw soxna Aida yàlla yàlla sutura si bakk Serigne yàlla yàlla sutura si bakk Serigne baax nga gën nga yaatu nga waaye tam li nga ko ñaan si yow benn jubóo moom jubóo sama jubóo kenn du la yem day waali wala ko fekk mais ay def saaliw musul am li nit ñi yàqu gileem gileem yi kenn kenn luyewu ko ñu ngi nii di leen fay na leen waaye di kenn luyewu ko waaw loolu nga wax am na solo de Lamine waaw Lamine gileem waaw Lamine nga li gileem yi dama ni dama ni gileem yi nee na kenn luyu ko. gëléem yi kenn luyu leen. ñu doon koy rey. ñu ngi nii di rey gëléem yi. waaw ñu ah, ngi koy rey waaye ñoo ngi ko fàtt. ñoo ngi ko fàtt gëléem gi. kon léewuñ ko. Ousseyn mooy tur gëléem gi. gëléem bi tam ñebe ñu ko fàtt. ñoo ngi koy fàtt gëléem gi. mu ngi noonu. fii ci kër El Saliou. fii ci kër Soxna El Saliou. la grande voyante tey mu demoon Màkka nag. mu ngi noonu gëlëm yaa ngi noonu xam naa fii ci Parcelles lii mos fi am jamais bi mu ngi noonu na yaa ngi noonu gis nga fii ci kër Soxna Aida Saliou na yaa ngi noonu beneen gëlëm baa ngi ne de naa lii kenn xanaa lu def kenn du ko jeex barke Serigne Saliou mu ngi noonu soxna saa ngi noonu tedd gi waaw waaw waaw jërëjëf yàlla suñu leen si code tuubloo leen teg leen saata mu taxi ma. Mhm. si bakk seen naa Muhammad dama lay ñaanal soxna ay li nga mun ren yaa ngi mën déwén. Mhm. si bakk seen naa Muhammad sang-sang yi li nga def li def yombul. ndax macha allah mhm. jugee màkk. jugee màkk ñëw di nga ne. yeew nag. yow gileem. Mhm. maasàllaa mhm. Fonda. Mhm. Salim soxna Moussine Sall kenn sama mag ji. waa Kaal maasàllaa daf lu baax. jokko bi màgg na ko Soxna Aida dama bëgg nga ziyaare Seydina Mohamed kon Soxna Aida li du sens bi mérite la. waaw woo gileem woo baas. ñu ñëw leen baas ñoom ah. sama waa ji boo mbéy TV sama mag ji ah. sa sama ménagère ñëw baas baas yi Wally Seck daa yebal baas. dafa yebal baas. ay ay tracteurs nee na ma yebal tracteurs yi. yebal tracteurs yi ñëpp. suba la fas yéene nga ne di woo ñëpp xam naa suba moom dama ni maa xam gerte. ñu ngi séddale te te yaa war a séddale sam sam maa war a séddale sam sam ni. def sama jàllabe. lan dama dama dama bu subaa ne ku ma padd nga baal ma. ku ma padd nga baal ma xam naa suba sol sol xam naa xam naa xam naa suba ku ma padd na ma baal. su ma koo padd na ma baal noo koy séddalee nu ma nu ma koy xam def sama euh, def ilaa màkk mm. def sama jàllaabe ñëw fas yéene ba wéyal o oh, ziar wuy ma lampe yi sama bët yaa ngi dem baarama ne si nga jigéen bi moom dibee yaay seen Tuubaa solu seen si masha Allah allahuma baari sama catu morom sama catu keneen na ca dafa gaaw sonn Aïda yal na yàlla suturaat si bakki seen yal na yàlla suturaat si bakki seen baax nga gën nga yaatu nga waatam yéen ko nekk si yow biir dugub moom dugub sama dugub kenn du la waaw waaw Seck dafa baax macha allah. waaw ah, waaw kooku mooy kese ba kawee kooku kawee kooku la Diouf mooy yaayam. Euh, euh, coono la coono baayam mbokk yaay bi su góore macha allah baaxkat yóbbu la mag nga siyaat si naam nag. Mhm. lu sori laay. Oh, li magam dafa rëy waa li mu dafa rëy li waal def rek bor na yàlla day jooy li waal def rek day jooy waaye moom la ko defal defal ko waali waali moom la ko defal ndeysaan kayta wala nga bëgg ayda tey sa koñ la ayda ñëw dëkk fi fekk si la sa biir koñ waaw Ousmane t'inquiète kaay ndeysaan

mbégte bi nag yàlla rek laa koy seetee. man Serigne Saliou rek laa. Serigne Saliou rek a tax ma bëgg la man ndax man. bokkul sëñ bi koo bokkul sëñ bi rek bokkul ak moom lépp. Serigne Saliou rek Serigne Saliou rek laa la jàppee. Mm-hmm. Mm-hmm. danañ toog yenn saa seetaan kon temps bi bëgg a dee wala bisu daal bisum sëñ Saliou. wallaay dëgg la ñu bëgg sëñ Saliou dañoo am fit. Mhm, dëgg la dama ne ah, dafa am waaye dafa bëgg sëñ Saliou. boobu sax may fàtte waale mhm. moom. sama xol du mën maa ko bëgg. Mhm. sama xol moo ko bëgg. xam naa mbëggeel mi léegi ndax man mën naa laa bëgg duma la woo téléphone. wallaahi dëgg la du ma la seeti. duma la def dara du ma def benn coono yi ni ñi di teg ci ay. man loolu du bëgg nit bëgg di yëkkati ay loxo la koñ. di la laxasu loolu du bëgg. Mhm. te da nga koy di ko yëg ci sama. dama koo bëgg nag. dama koo bëgg ba man ma yónnee bi. loolu mhm. bëggeel gi day yokk. daanaka mhm. seen i naaw xam naa kontaan naa ci lépp nag bisu yaa ma gën a xam lépp. Mm-hmm. yow xam nga man xam naa. Mm-hmm. ñu ne fi parcelle ay temps da doon dégg agressé kenn kenn defut agressé mm-hmm. ndax kon defal na ñëpp. ndax tey ji doomu aadama da ngay fekk nit teg da ngay fekk nit teg si yoonu bu bon. nga defal ko ba mu baax waxtaan ak moom dara ko hmm. bu nekkoon ñëpp a bon ñëpp a bon nga daw leen dëkk bi day gën a yàqu hmm. waaw dafa dafa waa Parcelles wax dëgg yàlla wóolu leen waxtaan di jox lekk di leen jox naan li nga xam ne nu la soxla àlla jàmbul hmm. yaa ngi leen di leen jox ne leen bàyyi li baaxul kon yal na si jàmm yàgg si bakki seen am sànq noo def ak ndox mi bi ngay ñëw bay damaa xuus daanu naa prier naa ay def naa lu ne suñu tool nii maa ngi am maa ngi maa ngi di ko di a <laughs> tey gis euh, nañu waaw ñëpp man Wally surprise dootul dootul dootul doon ambition ci ah, sama doom ndax tout le moment mun sentir que. ndax nag. Euh, bëgg bi bëgg bi dafa xatoon. non suba du yomb ah si yaayam. suba da ñu jàkkaarloog suñu yaay macha allah yaayu aduna yaay waa Ramadan yaay wari balaa soxna a wax askan bi euh, gi ñu war a màggal macha allah gan gu tedd gi muy yow la war a doon wax askan bi. waa sant yàlla julli ci Seyduna Muhammad sangu sangi ñi ñaanal sama waaja sëriñ Saliou yal na yàlla yokk ay leeram ñaanal sëriñ Mountakha yal na fi yàgg te wér waaye noonu laay ñaanale xarit yi soppe yi waaye soppe yi ki ci njëkk ak xarit yi ki ci njëkk ak ki ma def nii tey muy sama doom Waly Seck Ibrahima Seck doomi Papa Thion ak doomi Jaaga ak euh, jabaram soxna ay dara maa ngi leen di ñaanal fi nu bëgg a àgg yal fa yàlla yóbbu teral ma nag teral àdduna bi yëpp la ndax man ku ma teral teral nga sëriñ Mountakha ku ma teral teral nga sëriñ Saliou ku ma teral teral nga Tidiane teral nga Xaadir teral nga Laayeen moom nag teraanga ji ma defal mooy teraanga ji nga xam ne gan gan ñëpp teraanga yi ñëpp mooy wan la Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa dem nañ ba ñëw nag woo nañu ñëpp kuy xarit kuy soppe ah soxna Aida woon na Tidiane woon na Xaadir woon na képp koo xam ne dégg nga sama kàddu gi mooy bu subaa danga bëgg ma am ci man cofeel am ci man looy yëg ñaan naa la nga ñëw ci parcelle fekk si ma ci sama bis bi ndax ñëpp a ngi koy wàcc waaye dama leen koy gën a noppalal dafa leen ko suba